ay ca ndeysaan final poids lourd baa ngi noonu ici Amar Fafako diggante Gaskal Jamme borom Palmarin ak Fambouda borom Bassoul di bëgg Amar Fafako teeru ne du ñu fàtte teranga bi di ko njëkkee ci Brésil Bende Gramañi Tolé Lassar Ibou borom Mbar ma ngay ziar ci président de tous les syndicats de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le grand président des président l'homme au Mayan Lomfor For Ansu Sengor Dombe Ibu doom day Ibou Idirio Wame Mbay cham, ne di bëgg Yerwa Goye Jabaran kenn xajat ana ma di bëgg Omar Ngala borom Sëñ borom Jaraaf nee na yaa juma ziar naa la le grand Ablaye Faye di bëgg Waly la bañ di bëgg Mansour Kortewa Liman Matar bëgg naa la di bëgg Bambou Djilas min Alaaji Saliou Ndiaye dëgër bëgg naa la Papis Gaye Diouf le grand professeur Djilass di ko jëlee ci Père Badou jelas ngeen Père Njaañ Djilass Père Idi Babak jelas moo doori cam Mam Korpaya Salu Bata Zamay ini Mak bak Isa Abdou Mbulum Bay Siga Usman Deb Soul Moussa Mbab Pegana la Basiru Pegana la Sankale Diouf moo dem Pegana góor gi di xaar